ku ko defit musiba la ndax bi ko tubaab yi waxee ni ko góor gi dañu bëgg kat nga ñaanal ñu nit ñi ñu bàyyi daje yi ci jàkka ji ndax peste bi dafa wàlle mu ne ah bu bu ñu bu ñu tëjee jàkka yi mu rey ñëpp waaw mu ne bu ñu tëjee jàkka yi peste bi rey ñëpp tax ñëpp waaw kon nag bàyyi leen rek ñu tijji yi ndax yàlla di ko woyofal ci barke ñiy dugg ci yi